الحمد لله رب العالمين القائل في ذكره العظيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وهدي الكائنات وفلاحها وروح الجنان ورواحها وعين الحقائق ومفتاحها وعلى آله وصحبه ومن والاه ورضي الله عن شيخنا ومشايخنا أجمعين وعن أولياء الله السالفين والخالفين أعوذ بالله أن أقول دورا أو أخشى فجورا أو أن أكون به مغرورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوكي لأننا يبين أن يوندي لن زيارة بنيو تسنو دلانت بنيو دلانتون شدرس بيين خمنا موي darsu bi ci Faydul Jaari mooy commencé téere bi nga xam ne mooy albayaanu wa tabiyiinu an tijaaniyati wa tijaaniyiin ci mbindam fadilatu cheikh lislaam saadatil anaam مولانا أبي إسحاق شيخ إبراهيم رضي الله عنه منك تيربو أمسر دي كم نمنك تيونوان بي ليرال تي تيجانية أك نيغا خمنا نيوشنك موي تيجاني طريقة تيجان الحمد لله رب العالمين القائل في ذكره العظيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وهدي الكائنات وفلاحها وروح الجنان ورواحها وعين الحقائق ومفتاحها وعلى آله وصحبه ومن والاه ورضي الله عن شيخنا ومشايخنا أجمعين وعن أولياء الله السالفين والخالفين أعوذ بالله أن أقول دورا أو أخشى فجورا أو أن أكون به مغرورا asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu okki ñu leen di nuyu beneen yoon di leen ziyaar di ci suñu delante bi ñu delante woon ci darsu bi nga xam ne mooy darsu bi ci faydul jaari mooy commencé téere bi nga xam ne mooy البيان والتبيين عن التجانية والتجانيين بندم فضيلة شيخ الإسلام سعادة الأنام مولانا أبي إسحاق Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mu nekk téere bu am solo di comme ni mu nekkee ci onwaan bi leeral ci tijaaniya ak ñi nga xam ne ñoo ci nekk mooy tijaani yi tarixa tijaan daal ak ay ñooñam ani tijaani to tijaani yi mënoo wax tariqa tijaan mënoo wax ñooñ tijaaniya lu dul ne rek dégg nga wax nga tasawuf bañ nañ ko ba ni at turuq as suufiya yoon yi nga xam ne daf lay yóbbu ci nga nekk ab sufiyanke lan mooy sufiyanke comme niñ ko melalee ci suñu dars yi weesu lan mooy sufiyanke lan mooy tasawuf melet yu bare bare bari ñëw na ci borom xam-xam yi ci ay taarif ay jàngale ay wane lan mooy sufiyanke waaye dana gënu caa jot rek jot dara gënu caa jot koo xam ne dafay def ndigal ya bàyyi tere ci ni ko yàlla bëggee du ca gën ni ko bëggee ngir am ak sell ngir amak njub ngir am ak dégg ngërmande boromam moom itam la ko Seex Tijaan Chérif radiyallaahu anhu melale kon turuq suufiya yoon yi bari nañ soo xoolee da gis ne tariqa tijaaniya bari na lool tariqa yoo xam ne ñoo ko jiitu ci ay turuq comme ni nga xamante ne boo xoolee diine lislaam bëri na ay di addiyaan yu ko jiitu ay diine yu ko jiitu waaye gis nga rek yàlla mi nga xam ne nal fadla bi yadillahi yutihi man yasha allahu alfadlul azim gis nga ngeneen gi nga xam ne defal na ko diine waaye tariqa tijaaniya itam ci biir turuqi ku nekk rek gis na dégg nga euh, ni ko arab doxee ma sema kal ayaan boo xoolee turuq suufiyee yi bari na trop te li ma la wax da lu la maanaam lu am ak cosaanu la ci diina ndaxte seydna ali ibn abi talib karamallahu wajhahu am na mbootam laa ilaha illallah ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ay zikar yoo xam ne am na ci ndigal comme ni nga xamee ne seydna abubakar sadi am na ndigal ci baatu laa ilaha illallah bi isbaat naf yi la ba ifraat la ñaari tur yi ñaari bu ci nekk façon maanaam sikar la boo xam ne ku ci nekk jëlee na ci mbóot yi koy ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam-xam yi rawatina borom xam-xam yi sufiyanki yëpp dëppoon nañ ci ne mooy yooyu mooy cosaanu wirde ndaxte wirde yi yëpp boo ci dem rek ñu ko fekk kalimatu dégg nga tawxid bu màgg boobu ñes mel ni Seydina Ali karamallahu li nga xam ne talqin bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam def na ko ko ci wir daaw la ilaha illallah ak mbóot yi ci nekk ginnaaw ga moom ci boppam moom Seydina Ali sana ko xasanil basari xasanil basari moom sana ko ku mel ni xabibul ajami xabibu ajami sako ko taayi wala daawuda taay daawuda taay sana ku mel ni maaruf karaxi maaruf karaxi sako dégg ku mel ni siru siqati siru siqati sako ki nga xam ne imaamu wala nga imaamu hazi taifa imaamu junayd ñu ko imaamu imaamu ahlu imaam imaamu taayifa imaam taayifa suufiya nga xam ne bokk na moom ci ñi gën a fës ci tariq ci turuq suufiya wala ci olamaa suufiya waaye tariqa bi nga xam ne mooy tariqa bi mu nekkoon itam waaw tariqa bi mu nekkoon itam bokk ci tariqa yi nga xam ne moo moo bokk ci tariqa yi gën a fës kon nga gis ne lu cosaanu la limaam Ali waxoon ko rawalaaw ci biñ ko laajee ne ko man ndax yéen moom yéen ñi borom jagle da ngeen am yeneen wax yu wàcc ci yéen daf leen ne benn wax yu wàcc li fi yéen ci bàyyoon rek moo fi nekk bàlli am rek mooy fahmu jadid boo xam ne yàlla dina ko jox da koy waddal ci xal bu abdil mumin xolu jàng kon tasawuf yoon la woo xam ne nit ki daf koy jël ngir yegg ci meññitum diinil islaam moo taxoon kenn ci alaamu tasawuf mooy molaana cheikh al islam wa saadi fi anaam bi mu ñaan yàlla daf nekk wala yakun wala yakun qishru diini xadda muhibbina bali lubbi lubbi lubbi maxdi ataayi yàlla ñu ngi lay maa ngi lay ñaan yàlla bu xottu diine nekk suñu cër man ak samay ñooñ waaye yal na lubbu ba nekk suñ cër mooy la gën a for ci diine saalu saalu saal dégg kon loolu mooy moo waral turuq suuf yi yooni suufiyank yi ngi gis yëpp loolu rek moo ko tax a jóg ngir yegg ci dayob lislaam te mooy maqaama ihsaan bi nga xam ne moo tax xasan nadawi noonu ak a neexoon buñ tuddee sax tasawuf tasawuf waaye ñu tuddee ko maqaamu ihsaan ndaxte ñu bëri tur wi wor na leen ba tax buñ ne sufiyanke tasawuf mu tasawifoon a nangam nangam mu jaar fa moom déggin wu ñaaw yi mu ci am dina tax sax du ko jëriñ te yàlla xam na ne dégg nga tasawuf mooy maqaamu ihsaan mu ne ak mu ne ndegam tur yi ñi dañ ci woowu ak neexoon ñu woowee tasawuf ne mooy maqaamu ihsaan kaa xase noonu la demee kon turux suufiya yi bëri trop. man nga ci lim tariq ba bu ci mel ni tariqa karkariya mën nga ci lim lu mel ni tariqa qadiriya qadiriya si siiw suñum réew la tariqa qadiriya bu si abdul qadir jilaani mën nga ci mel ni tariqa rifaiya mooy tariqa saydi ahmad rifai mën nga ci dégg nga lim tariqa badawiya mooy ahmad badawi man nga lim dëssuqi yam mooy ibrahim dëssuq tariq akbari yam imam ibnu arabi man nga lim saaduli ya tariq abu xasan saaduli naqsabandiya xatimiya rifaiya dégg nga nuuni ya ginnaaw rifai gi amaan dégg nga amaan na nu tariq yi ah, turuq tatawalladu dafay beneen cil fàqe ca daadi kii comme niñ ko xamee bari na trop tariqa malaamatiya demet man nga am lu mat boo ko doon li mën ngaa dem ba ci lu mat junnee turuq yoo xam ne ñu ngi ci àdduna bu ci nekk ay nit nga ci dégg nga di ca fexe amee safaaw donte nag duñ mos a tolloo donte maqaasidi mën naa wuute donte tarbiya yi mën naa wuute donte madaaris itam mën naa wuute moo tax tasawuf boo ko doon mel madaris madaarisu diiniya fi tarbiyati wa tazkiya am na xam ne sax duñu wax suufiya mais dañ naan tazkiyatu turuqu tazkiya au lieu que ñu naan turuqu suufiya léegi ñu naan tariqatu suufiya dañ naan tariqatu tazkiya ndaxte lam lay bijjël mooy tazkiyatu nafs dégg nga bakkan bi fexe ba mu sell loolu rek moo lu yitteel kon da ngay gis ne rek ba tey benn benn maanaam suuf yooyu loolu toujours rek mooy ku ci nekk ci ñoom ci jamonoom ca abaqire la bokk ki gën ëpp xel ci jamonoom bokk ci ñi gën a ëpp yeewu ci jamonoom bokk ci ñi gën a mokkal alquran bokk ci ñi gën a gëstu fiqhu islaami ci mazahib yu wuutee bokk ci ñi gën a am yitt ci jamonoom ku ci nekk rek boo gëstu histoire am loolu nga fekk moo tax nag ñu dem a dem ba yegg ci dimension boo xam ne ah dañuy raw seen ak maas nag wala ci seen yitte it yàlla jagle leen loo xam ne ku ñoom mën na ko ñakk am isa imam Junaydi radiyallahu anhu nee na su fekkoon ne xam naa ci ron asamaan si benn yoon boo xam ne moo gën yoonu tasawuf moy dina ko jël te baye yoonu tasawuf waye gisuma ci ron asaman ci yoon bo xamne mo ko gën ndaxte ah daf lay may istiqamat daf lay may taqwa daf lay may iman daf lay may sidq daf lay may may dégg nga net daf lay may muraqabatu daf lay may mushaahadatu daf lay may maarifatu dégg كان mu بالله أعظم الكرامة هي الاستقامة on arada karama qaala lil karama mu ne li gën a màgg ci karama yi mu ne mooy istiqaamatu njub ay léegi mu ne màgg mooy njub on araadal karama ku bëgg nag karama mu ne dëgg li gën a màgg ci karama mooy njub mu ne kon képp ku bëgg karama qaala lil lil kara dafay wax nelaw kara mooy ay nelaw gëmmentoo ki nelaw mun su boobaa danga naan ma dalal maam toppal fële yow nelaw ak maam daal daw da ngay teg fële ay nelaw mu tax olamaa yi rawatina olamaa suufiya da ngay gis ne seen àdduna dara neenu ci dañuy nekk ñu fonk waxtu dañuy nekk ñu am yitte seen dund gi dara du ci neen ndaxte dañoo bëgg li nga xam ne mooy karaama kon euh, lu yaatu la lu bari ay dégg la waaye lu itam lu jara xam la xam ne tariqa daal mooy yoon yi nga xam ne waa ji daf koy jàpp ngir yóbbu ko ci lef mi gën yóbbu ko ca fi bëgg dem su yeggee rek jàkkutee fa mat kon mu ngi noonu lef mi ñu bëgg dugg nag lefam tasawuf la moo tax laal tuuti ci ginnaaw dafay am solo imaam Ghazali borom xam-xam bu ma borom Ihya Ulumuddin lim bind ci xam-xamu diina kéemtaanal yàlla la waaye sàkkam ba sikki sàkkam ga ku ne dégg ko ku ne imaam Ghazali toog rek ginnaawam jàngi alquran tam xadis jàng mutuuni toog rek ne man daal am na lu nekk ci ginnaaw bi beneen xam-xam boo xam ne war na koo xam daal di sóobu lefum tasawuf ginnaaw boo xam ne am cinquante ans nekk imaam nekk mufti nit ñi di ko déglu moo xam ne daal lii baax na lool waaye bëgg naa leneen lu gën a foor lii bëgg naa daal am leer ak yàlla nga xam ne ñi am jagoo am nañ ko ci la sóobu yoonu tasawuf yoonu tasawuf bi yàlla defal ko fatxu moo tax imaam ibnu ataayla nettali ne solo ci imaam junay di mu ne tasawuf mooy an yu mitikal xaqu way xiika bi mooy dee ci yàlla rey ci ci ci ba pare ci bi daal la dundal fa moom mooy ak xam ne yow yaa ngay dund ci péeb yàlla ba yaa ngay dundu ci xadaratu xadaratu nuuraaniya loolu mooy tasawuf loolu nag du mën a am lu dul yi lay gàllankoor ci ay nga simmee ku ca ba seet loolu nag du xëy rek sotti dafa am fuñ lay jaarale am fuñ lay jaarale am fuñ jaarale loolu mooy tariqa loolu mooy tariqa shariatu tariqatu dégg nga xaqiqa tariqatu a shariatu tariqatu nii lay toppante ginnaaw ba amee bu baax am tariqa bu baax tariqa bu baax boobu moo lay yóbbu ci dégg nga nuurul yaqiin nga am li nga xam ne mooy xaqiqa comme ni ko sëriñ bu waxee idahi sharci wa nuuri mubiin rabbi bila shakkin wala riya ci sharia ju xam ne dafa leer naññ mooy sharia ju xam ne fu ko borom appliqué nga xam ne li sharia muhammadiya la waaye ak leer leer ak lislaam gu mooy shariatu ginnaaw boo ko appliqué eh, nuuru mu biin la lay jural la lay bijjal ndax ne nuuru mu biin mooy meññetum sharia mu ne ci lee ñaar yooyu ci laa yar ñi nga xam ne ñooy saalikiini mooy ñu soowu soowu jëm ci yàlla te jaaree ko ci suñ bunt ci loolu laa leen yar kon su ko defee eh, ki wax lii moom lañ bëgg jàng téeréem bii di albayaanu wa tabiyiinu ani tijaaniyati wala xaro du lu jomb mukk ci ki bind téere bii lu mel nii te dinañ ko gis moo waxoon ci ndaw nasihatun minni ila ixwaani tariqati tijaani ca wul adab maa ngi leen di laajee biir man Ibrahima Nabil Haaji Abdullah maa ngi leen di laajee biir ne leen fa tumsiku tariqati tijaani jàpp leen tariqa tijaani lu tax tariqa maa di fadli wa ridwaani usisa bi wal furqaani tariqa la boo xam ne dafay dooteeku ci moom ay ngëneel ngërmande yàlla. kooku moom la jamono dem ba moom mujj taali téere bu mel ni ak yeneen yu dul moom yoo xam ne yii di tagg Seydina Cheikh yi di jàngale tariqa jàngale suluk bi mooy yoonu jëm ci yàlla nuñ cay sooboo lu ci ne rek radiallahu anhu jàngale na ci téere bi nag ma ne mën nañu wax ne bu ndaw la ci ay page am waaye téere bu rëy la ci ay maana téere bu rëy ci ay maana tey dinañ gis incha allah page bi njëkk ci téere bi moom lañuy gis du jeex sax waaye ñu def ko comme tamhid su ko defee incha allah ànd ak li ñu wax ci di may ci darsu bi rek kon niñ ko defee ci téere yi weesu ba keroog muy jeex incha allah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 تعريف تعريف بالطريقة التجانية وبعد فإن طريقة الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه التي لقنها أصحابه الميامين ونشروها بدورهم في العالمين وأيد الله بها الإسلام في أقطار عدة هي الأذكار الثلاثة الاستغفار والصلاة على النبي بأي صيغة ولا إله إلا الله وقد أشبعنا الكلام فيها وفي التصوف بوجه عام في غير ما كتاب ولمن شاء أن يراجع كتابنا كشف الباس an faydil xatmi abil abbas mu ngi ubbee téere bi ci alhamdulilah sant yàlla mi nga xam ne rabbil mooy ci nga xam ne mooy borom alamin alam rek jamoo la ci boppam waaye buñ ko defee alamina jamool jamee la gën a bëri rek la ci judaay mënoon na wax mooy ki mooy aji fasaa ji nga xam ne moo gën a fasaa mboolem kuy fasaa mu julli yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla sant julleen ci moom waaye yonent boobu nga xam ne abdul mursali moo gën ci ñu yàlla yónni mboolem ku ñooni moo la gën yàlla julli ci moom wa alihi ñooñam waa këram wa sahabati sahabaam wa taabiin ak ña topp ñooñee wa taabiihim ak ñooñee ña leen topp ci lan bi ihsaanin ci njub ak xiiw ilaa yawmi diin lii kat la ubbee téere bi sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalaam nga xam ne sufiyanke yi dañ koy def ci lu bari te ku mu neexoon rek nga ne bismillah ubbee bismillah rek barke na baax na ndaxte yonent bi nee na bépp mbir mu ñuy commencé rek buñ ko ko ubbee barke tàbbi na ca buñ ko ko ubbee wu ñàkk ñu barke la waaye gis nga te rek mooy waral Hmm, sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon lii mu bi tariqa tijaaniya jàngale wala xamle lan mooy tariqa tijaaniya baax na ci di xam lan tariqa tijaaniya yow toujours ne coow li li ko bari yëpp mooy ñàkk xam rek waaye su fekkoon ne ñi ci yëngu ñëpp fexe nañ ba xam li ñuy yëngu lan la fi dina neex a régler dina tax lu ci bokk rek nit mën ko ci gaaw a dindi ko teg ko fële li euh, si Mawlana Cheikh Maay Ali Cissé qaddasallaa sirra wa umra li wax mooy dëgg mu ne yow mi nga xam ne gëstuwoo ba jéem a xam yëfi dëgg-dëgg lan mooy xaqiqaam nan la war a demee ndax ngay xool ci benn waa ji nga xam ne dafay woote woo yëf yi maanaam dafay woote mbir mi te fekk moom du waayu mbir mi mooy la mbir ma laaj defu ko waaye mu ngi koy woote woo yow nga xool waa joojo ba àttewu ci mbir mi naka su noonu mu ne su boobaa da ngay daanu parce que waa ji moo dul waayu mbir mi maanaam moo dul waayu li mu woote moo tax yow bi nga xoolee waa ji melul ni ki ki woote mbir mi ni mu war a mel nga ne waa ah, kon daal mbir mi nii la mel nga daal di atte mbir mi ca waajo fekk waajo moo dul waayu mbir mi eh, mu nekk xekk ma bu jar a xel mooy waa ji di woote tariqa tijaaniya jéemul a xam lan mooy tariqa tijaaniya jéemul xam lan mooy ay njàngaleem wax dëgg yàlla di ca dugal lu ko neex di def di ko di ca dugal la ko neex di ci génne li ko neex su ko defee nit ki gis loola rek maam moo la moo tax bari di laan wax si waaye rosaale mu ne bëri na ñu ñoo xam ne dañu woote yoonu yàlla te fekk ñooy gàllankoor yoonu yàlla ndax ñàkk jub ñàkk jub gi ñàkk jub ku xool seen ak jubadi rek daal di ayibal lañ woote fekk ñoom dëgg-dëgg lañu woote bu fekkoon topp nañ kon niñ ko tëralee rek si ku dox kon mo tax itam tariqa tijaniya waji ci nek wara xam lan mooy tariqa tijaniya su ko xamee appliqué ko rek ku gis tariqa tijaniya rek di naan tariqa tijaaniya doy na ci rek alam bi di maanaam Cheikh Ibrahima ku ko mo ku ko mos gis rek naw nga tariqa tijaniya ndeg mom parce que mom ben mom bu ci tariqa bi ci wax ji ni mëna dégg dégg ni yom kon bu ne le tariqa tijaniya motax mu ne ginnaw lool tariqa tijaniya dal bi nga xam ni ñu ko dàkkatale ahmad ibn muhammad tijani am sayd ahmad tijani ba mu tudon muhammad muhammad ci miim miim gi njëkk gi dañ koy dañ koy Fatha muhammad ahmad ibn muhammad tijani radiallahu anhu mu ne tariqaam bii la ci mooy bi nga xam ne laqanaa asxaabahu moom la jox saxaabaami ñi ko wóoroon taalibeen mi ko wóoroon moom la leen jox almayamin mooy dawil yumn wal baraka mooy ñi nga xam ne dañu am barke daf leen defal barke defal leen baax bi mu leen ko joxee woon nacharuha ñu daal di ko tasaare bi dawrihim ci seen ci seen rôle bu mag bi nga xam ne am nañ ko responsabilité bi nga xam ne nangu nañ ko am ci tarixa bi daa di ko sonnee guddi ak bëccëg na nashruha ba tasaare ko nag fil aalamiina ci monde entier fu nekk rek ñu fexe ba mu yegg fa tariqa bii moom la jox ay saxaaba ginnaaw bu mu leen ko joxee nag ñu daal di ko tasaare mu ne na ci aalam fa fu ne ci àdduna yàlla dimbalee ci tariqa bi lislaam يالا ديمبالي سي طريق بوب الاسلام ويد الله به الاسلام في اقطار عده مثال بكاي دوينا سي بيغي خامني موي فايده تجانيه جدو سي بير طريقه فايده بي نياتا نيت لا سي الاسلام تفايده بو فايده تجانيه لا نيا سي تجان موكو موكو موكو دليون Tijaani moo ko junjoon ci faydatu ala ashaabi atayatu xula naasu fi tariqina afwaajan tariqa dina ñëw maam suñ tariqa bi faydu na ci juddoo ci faydu boobu daf ci duggee baam faydu boobu ñëwee nit ñi dugg suñ tariqa bi ay mbooloo yi mbooloo ay kuréel ak kuréel loolu moom adduna gis na ko moo xam ne tariqa bi dina ñëw fekk nit ñi ci jamono xat-xat ak jafe-jafe xat-xat ak jafe ci wàllu yàlla ñu di tuñ tuñ ku nekk am problème tarixa fayda boobu daal di ñëw daal di régler lépp moo tax mu ne yàlla dimbalee ne lislaam ci fayda boobu maanaam ci tarixa boobu nan la yàlla dimbali daan ci tarixa boobu fayda ci jaaniya moom ñëw dégg nga moo tax Mawlana Cheikh Ibrahim wax ku ne bi fayda yanaalu diin rafaan liwaayi sama faydu bi nga xam ni moom la ma yàlla jagleel ci la diinal islaam dégg di amee drapeau bu yëkkate ko ci la diine di yëkkate ko kon tariqa tijaaniya bàyyi ne na ci moom laal dimbali lislaam fi aqtaarin adda ci ay goox te tariqa boobu boo xamul hiya hiya salaas ñetti wirde yi laam moo tax bi mu waxee ci woy wu alayka bi xablillahi lil abdi waasiqa fa nahjun yu naawi dikra nahju shaqaa'i yow waa ji fexe jàpp bu ma yàlla gi te fexe dëgër ci jaam bi fexe jàppandu ci jaam bi jublu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam lim fi jël lim fi indi nga jël ko lim lim tere nga bàkk comme na mu ko waxee ca ni ko laay joxe leen yonent bi saa salaam jox jël leen lim leen tere rek baleen bi mu waxee ci woy wa nag ne fexe leen aleyka bi xablillahi lil abdi wasiqa mu daal di nag tontuwaa ji nga xam danaan ko ah, yow nga ne aleykum aleykum bi aleykum bi abdi wasiqa nga teg ci fa nax jun yu naawe dikra nax yu shaqaay bépp yoon bu wuutegal Alquran rek yoonu texeede la yow nga wax loolu ba pare kon nooy def ak tariqa mu gaaw tontu waajal ne ko wa in qulta hal zal wird nahju muhammadin aqulu naa wird li nay li nay li safa yow mi naan ma est ce que sa wird wax ni ci yoonu yonent bi la la waaw nahji li nay li safa nahji li safaay dégg nga dara lu muy am ndaxte fa maa fiihi dikru cheikhi aw dikru xayrihi fa wirdi li daay abdi ay ni la woo xam ne turu cheikh Tidiane sax amus lépp tudd yàlla julli ci yonent bi istixfaar loo rek mooy wirdi moo tax mu wax ne mu wax ko fii ne dégg nga hiyal adkaaru salaasa wirde tijaaniya bi nga xam ne ay saxaabaam góorgóorlu nañ ba mu daj ci fu ne ci àdduna mu yegg fa ñetti azkaar yi laam ñetti tudd yi ñetti siikar yi laam muy istigfaar wax astaghfirullah wa salaatu ala nabi julli ci yonent salaa bi ay siixa ci siixa bu mu mën a nekk mooy na nekk julli ci yonent bi rek doonte nag tariqa bi am nañ am na julli ci yonent boo xam ne moom moom la jagoo li la xamal ne moom la jagoo ñi nga xam ne ñooy saalikiin ci moom la ñuy jaar pour am seen kon terewuñ waa ji jàng beneen salaatu ala nabi waaye nag bi nga xam ne moom la tariqa tijaani jago ay am daadi asxaabam di ci jaar wax dëgg yàlla salaatu fati lima uliqa kon waa ji bu ko neexee mu jàng beneen xeeti salaatu terewuñ ko ko ci jamono jum nekkee ci azkaari waye bu na nak bo xam def daf ko jëlee ci benen entrepreneur du jara xam bu nekkul xam ne ko jëlee ci benen benen tariqa ñu jox ko ci lim jox ko ci wir daw mu am ci ndigal ak yoy déedéet nako nako def rek parce que jappé ko salatu waye bi ngeen mooy salaatu fat ma ko rek motax astaghfirullah la yalla ko santane ci alquran dégg saghiru saxiru rabbakum innahu kana ghafara jéggalu leen sen ya-, borom yalla moy aji jéggalaa kon laay tegtal jéggalug jaam bi wareefug jéggalug jaam bi jëmi ci yàlla bëri na lool kon bu fekkente rek tijaan indi na rek damay gis ne alquran rek la salaatu ala nabi ba tey julli ci yéen salaatu ala yàlla ko wax ci alquran moom it luñ la inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa taslima yàlla ki malaakaam ñu ngi julli ci yéen ci yéen ñi gëm yàlla julli leen bu dee lu indiwaalan lan laa ilaha illallah ñett yi ay mooy composé tariqa tijaani mooy wax laa ilaha illallah kon wala zikrullahi akbar jeex na loolu kay nasalaata tanha anil fahshaai wal munkar wala zikrullahi akbar aqim salaata zikri tudd yàlla ñett yi moo composé tariqa tijaani moo tax bàyyi bi ko waaye ne ah yow cheikhul islam ay Ibrahima Ñas maqaama bi nga am ni nga sa xam-xam bëree ñëpp àdduna yëpp seede la xam-xam ngay dem di dugg ci tariqa tijaan yow daal man sa jaaxal na mu ko waaw li ma lay wax rek mooy ne est-ce que nit dina wax mbokkam jullitam ne ko ne ma dee loolu ne ce que nit dina wax mbokkam jullitam bul bul wax bul def salaatu ala nabi julli ci yonent saa loolu nit dina ko wax mbokkam jullitam moom waaye ne ko déedéet mu ne ko man wax ni boog nit danaa yaa mbokkam jullitam ne ko bul wax laa ilaha mu ne ko mu ne ko jeexal lii tariqa tijaan yi kon waa moo ci am dégg bu négatif waaye tariqa bi mu ngi nii nii ko léegi nag après bàyyi dina ñëw ci tafaasir yi nag yi nga xam ne mooy tax nit ki xam dëgg-dëgg tijaan bàyyi teg ci ne ginnaaw boo xam ne lii tariqa tijaan yi waqat ashbaana al kalaama mooy bëri na luñ leeral ci wax mooy leeral nañ te wax nañ fi ci loolee fi tasawuf ci wàllu tasawuf wëcc na am wax nañ ci yaatal ko ci wàllu tasawuf xam nga buñ ne dafa mel tasawuf mooy wëccu am dégg nga li nga xam ne mooy tariqa tijaan yi nekk wëccu xaas ci tasawuf ndaxte moom itam ci tasawuf la waaye yoon la boo xam ne dañ tariqa mu ayyan moo tax mu ne fi xayri ma kitaabin def nañ bind nañ ko waaye lu duwut mbind rek def nañ ci téere waaye duwut rek bind nañ ci wax nañ ci dégg nga wali man sha bàyyi na ba kum neex itam ani laa na li ñuy wax nii na fexe ko dem toppaat ko liiraat ko ci suñ téere bu wax kaasul ilbaas jamono bi bàyyi taarife kaasul baas mu lii wax nañ ko ci tasawuf jàngale nañ ko wax nañ ci lu bare bare waaye kum neex itam nga dem def révision ci kitaabu naa suñ téere bi nga xam ne mooy kaasifu al baas kaasifu al baas ba si kaasif mooy daal daal di téere bi ni mu tudd mooy xuñ ñi loo xam ne dafa dafa dafa desoon a leer lu leer la waaye nit ñi ñoo am problème ci xam ko mu koy indi di ko di ko muuri na mais luñ muuroon ba xamul ni nañu muuri mooy leeral lu lu lëntoon كلان عن فايد القتم أبي العباتي فايد بين خانم فايد سيد أحمد تجاني متخباي فايد بي يا من بناء كده فاي وين فايد تجاني يلا وين بير من كده فاي أم فاي مجيد بير من كده فاي أم برام بير من كده فاي أم دينغ أكتر بو خمنة مم كجابو لول مو تخم مم من كده صاحب الفايدة waaye bari aanu mosu tal wala mu cosaanal fayda ci fenn furut ci tariqa tijaani loolu itam lu xam la su ko defee li mooy li nga xam ne mooy njëlbeenu téere bi ñu waxoon ne dinañ ko commencé tey incha allah audio yi nag mënoon nañ ko def mu gudd bañ a bari waaye su boobaa du arrangé ñenn ñi moo tax ñu xaw a bari nii beneen yoon incha allah bu ñu ñëwaatee dinañ continuer toppe yaatal bi sax dafay bëri lool waaye nag léeg-léeg du mën a ñàkk yéen yàlla mooy ñu lépp lu ñu fi jàng muy njëriñ barki yonent bi alayhi salaatu wassalaam seen mbokk la Xasan Suufi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa